aawsu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci seen télévision bi di Touba Monde bi lëkkaloo ak rajo bi di xasida online ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér tey ñi ngi ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di wàccaayu bis bu màgg bi mu di 18 sa kenn ku ne xam Serigne Touba Cheikhoul Khadim bis bi fi mu ko tolloon ak yéene ji nga xam ne moom la yéene mbooleem jullit ñi mu tombé ak li nga xam ne nag mooy ki nga xam ne moo di Cheikh Mahamadul Muntaxa kenn du gën a gis liggéey bu am solo bi nga xam ne eh, mi ngi ko ciy liggéey saa su ne loolu di lu am solo waaye ni ngeen ko xamee murid yi nga xam ne itam ñoo nekk ci biti réew mi saa su ne ñi ngi takk seen i bagage ñoom itam fas yéene teewee ji li nga xam ne moo di woote bu mag boobu mën nañ ne bi weeru safar bi dooree ak léegi fenn fu ne nit a nga fay jógee ngir jëm fi nga xam ne moo di Touba Mbacké tey jii ñu ngi ànd ak yéen fi nga xam ne moo di aéroport bu Malpensa nekk fi nga xam ne moo di Milano euh, vol bali nag war fee jógee tey ji si ngoon am benn vol bi nga xam ne nag ci lañ nekk ni mu di vol spécial nekk vol bi nga xam ne moo di Neos Euh, ci ñaari waxtu ci ginnaaw am nañ départ li nga xam ne moo di air Maroc am nañ départ tamit li nga xam ne moo di air bi nga xam ne moo di TAP dina fi jóge moom tamit ci kanam ni noonu air bi nga xam ne moo nekk. Euh, air Maroc comme ni leen ko waxee sànq ci fàttali ni ko noonu tab bi tamit dina fi jóge si kanam ak yeneen air yi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi fi bàyyikoo mën nañ ci weeru safar bi dooree ak léegi ñi ngi taxaw na kenn ci jëwrin yi nga xam ne ñu ngi jóge fii ci e, gox bi nga xam ne moo di Milano di sëriñ Maam Thierno Sylla kenn ku ne xam itam cër bi nga xam ne moom la am ci yoon wi di kenn ci waa kër borom daaru waaye di kenn itam ci waa sëriñ kër sëriñ si la kon ñu bàyyee sëriñ Maam Thierno moom tamit mu andi ñu li nga xam ne moo di ay kàddoom ci yoon wi nga xam ne moom lañ dëgmal ngir fas yéene dem fi nga xam ne moo di Touba Mbacké ak gis-gisam tey jii ni nga xam ne daanaka aéroport bi bu ñuy xool da nga naan euh, nit ñu ñuul ñi sax ñoo ëpp far nit ñu weex ñi ndax fu ñu xool fu ne ay la ni ngeen waxee mbooleem volet ñi ngi départ ci suba ak léegi ni ñu ko waxee am nañ fi départ Air Maroc sànq am nañ fi départ li nga xam ne moo di tab bi am nañ fi départ li nga xam ne moo di Iberia am nañ fi départ mbooleem volet yi nga xam ne ñi ngi fi bàyyikoo jëm fi nga xam ne moo di euh, Sénégal ñu ànd yéen ak ci volet spécial bi nga xam ne dina fi jóge tey mu nekk Neos bi kon bismillah sëriñ hakasa yakunu barakallahu fikum jasakumullahu xayral jasaayi Cheikh Mamadou Moustapha gannaaw bu nu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci sangab-sang yi xayrul wara njool di ko ñaanal di ñaanal ay saabaam wa man tabion bi sanin ila yawmi diini di ñaanal Seexuna Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul Ahmadu yàlla na nu yàlla fayal Serigne Touba lu ma mas a fay ku ko liggéeyal ngeen ji fay di jiital ci sunu nuyoo bu tedd bu màgg boobu Cheikh Mouhamadul Mountakha al xalifatul am fi taifatul muridiya afisahu llahu waraaw mun yàgg te àggali yéeneem ak i mébétam ndax njariñal umma bi yëpp la waaye njariñal euh, euh, adduna bi yëpp la kon Cheikh Mamadou Moustapha tey lu nu mën a wax rek mooy mbégte mbégte la nu am ci taxaw fii ci place bii war a jëm ca dëkk bu sell bu tedd ba di dëkku dëkkub naa Seex Ahmadul Xadim muy al Touba Mahrousa muy dëkk boo xamante ne bii sëriñ bi daj na lu ne maanaam door a gis pàkk bi waaye daj na lu ne itam ca dëkk ba maanaam ngir defar jullit yi defar jaami yàlla yi defar ay ruux ndax loolu moo waral bis bii nga xamante ne bii mooy 18 euh, safar euh, génn gi nga xam ne ma Cheikh Mamadou Moustapha moom la Serigne Touba génnoon Jolof te bind ko wax ne xaritu xaritu yow ma sa saamina asar li xidmatil muxtaar bi sëri safar loole moo waraloon ñëpp génn nañ. ñëppay génn ni nga ko waxee vol yi macha allah te lii benn li ci dëkk Europe yi muy maanaam euh, itali te fii de mooy dëkk bi nga xamante ni bii fi la la euh, diine yahudi diine nasaraan ya fii mooy seen capital kon Cheikh naa Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul li ma mën a wax foofu rek Cheikh Mamadou Moustapha moom am mission am réussir na ko yonent yu bari Eh, réussir uñ seen mission ndax ñu ci bari gox bañ dëkk fa lañu doon woote waaye Serigne Touba mën nañu wax ne réussir na am mission am lu ko waral mooy fii nga xamante ni bii la ñu taxaw tey muy eh, Malpensa eh, di Milano kër Serigne Touba nekk fi ngeen bokk ci jëwrin ya ñu fay taxawal la nga xamante ne bi moom la ñuy taxawal fa njaareem di fa taxawal la nga xam ne moom lañuy taxawal ca Touba ndax kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk Milan muy kër Seexul Xadim di sunu ambassadeur di suñu lépp di suñu rawukaay foofee la ñuy taxawal ci jumaay Serigne tubaa ji ca tubaa di ko taxawal ci jumaay Serigne euh, Touba ji ci njaareem loolee lañ fa taxawal muy alxuraanul karim te moom jëmm ju sell ji di ko fa taxaw muy euh, kaamil bi nga xamante ne bi weeru koor wu tedd wi nga xam ne saa yu ñëwee dana ko joxe ànd koog jullit yi ànd koog murid yi ba weeru koor wi jeex ak guddig alxames gu nekk itam danañ fa wàcc ñetti kaamil hadiyal ko Serigne Touba kon li ma bëgg wax foofu rek mooy Serigne mission moo réussir noonu nag dañuy wax alhamdulilah bi nga xamante ne bi yàlla boole nanu ñu bokk ci ñi nga xamante ne bi bëgg nañ Serigne Touba gëm nañ Serigne tubaa yaakaar Serigne Touba doyloo ko te itam nag lépp lu nu am rek Serigne tubaa la ñu koy delloo njukkal te delloo Serigne njukkal delloo njukkal Serigne Touba mooy ñu nekk ak njub wax naa ko barki démb ne li nu Serigne bi bëgg ci nun mooy rek ñu jub te suñu jubee lu nu bëgg danañ ko am kon Cheikh euh, Cheikh Mamadou Moustapha bis bii nga xam ne moom la ñuy dëdmal fas yéene ko ànd ak yéen te itam euh, liggéey bi nga xamante ni bi moom ngeen di yaatal ci àdduna bi ñëpp di ko gis yàlla na yàlla sama borom subhanahu wa taala fay leen ci ngi laq yi ngërëmal Sëriñ Tuubaa man nag li nga xam ne moom laay soññ saay bopp di ko soññ itam suñ bokki taalibe ni ko ni ko suñ Modou euh, Thiam waxee léegi rek ni ko doon waxtaane danoo war a seet nun ci suñu bopp fi nu toll ndax waxtu wu jot ñu ngi soññee ci Serigne Touba te Serigne bi li muy wax wax na ko li muy bind bind na ko nun ci jariñoo lañ war a seet kon loola nun noo war a seet kenn ku nekk natt boppam màggal gii nga xam ne moom la nu nekk nii yàlla may nu nu fekki ko ba déwénaat ñu fekkiwaat kenn ku nekk natt ci sa boppam ba xam yow lan nga yëg ci sa bopp ci sa bëgg ci sëriñ bi ci sa gën a sellal ci sa gën a jub ak ci sa gën a jëf ci lu baax ci lislaam kon loolu mooy waajtaayu maggal loolu itam mooy li nga xamante ne bii moom la ñuy dénk suñuy bopp muy ay kàddu yoo xam ne ñu ngi koy soññ bokki taalib yëpp di ko soññ bokki jullit yëpp te Cheikh m Moustapha ko indi Touba waaye màggal daan defee mooy bu màggal masaa jot dana bind ab discours boo xamante ne bii dañu ko daan tasaare di ko jox seex yi nekk ci àll bi mu ciy jàllale ay mission di ci mën a wax itam ndigal yi nga xam ne mooy ndigali yàlla yi mooy ndigali Serigne Touba ak liggéey bi Seex Mamadou Fadel bi nga xamante ne bii toog na ba ñëw moom moo njëkk a woote màggal gi Touba lan la ci jubli woon stratégie la stratégie de rassemblement euh, yoon wi ak liggéey bi nga xam ne mooy liggéey yu jumaa ji tey nekkoon ci ay circonstances yu xat loola moo taxoon maanaam ñu def stratégie boobu nañuy dajale fii ci màggal gi buñ fi dajaloo maanaam xam liggéey Serigne Touba ba di gën a dajale dëkk bi di gën a suqali dëkk bi mu woon ne nañ nañ ci jiital alxuraan jàng xasiida buñ noppee itam ñu dem ci barab yi siyaare saa fonte mooy doxu mbokk kon nag loolu ay yiw a ngi ci nekk yoo xamante ne bi kenn xamul nu mu toll loolu recommandation la boo xam ne képp koo xam ne dem nga màggali na nga xam ne lii mooy ndigal la na nga xam ne lii mooy jariñ lii itam moom la sëriñ bi bëggee woon bu ko defee ñun ñëpp danañ bokk jariñu ñi ngi sant bu baax nag tey gërëm di am tawfeex joo xam ne ànd gi ñu ànd gi yéen ci vol bi sant nañ ko sëriñ Tuubaa ndax yàgg nañ koo bëgg te tey ji la ko yàlla dogal kon alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf xaadimu rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ maam Thierno ci kàddu am sëriñ Cheikh Mbacke Ndiaye Eh, jógee fi nga xam ne moo di eh, Touba Varese moom tamit eh, féete ci gox bi nga xam ne moo di Malpensa ñoom tamit ñoo am taxawaay bu am solo ci wal bi nga xam ne tey moo fi a bàyyikoo nii jëm xam naa sëñ Cheikh dañuy ñëw rek fi nga xam ne fi la sëriñ Maam si la daaneele comme niñ déggee sëñ Mountakha gi di ko nettali ci ne sëriñ Mountakha dafa ko mas a wax ne ko màggal balaa murit bi xam ne màggal na maanaam yëg ko ci poosam wala mu yëg ko ci yaramam kon tey boo gisee murid yi dajaloo daanaka bi weer wi teroo ba léegi kenn ku ci nekk yaa ngi xintewoo naka ngay def ba maanaam dem fi nga xam ne moo di Touba waaye ñu xam bu baax itam ñi nga xam ne mënuñoo dem itamit ñi ngi koy màggale fii ci ay gox yu fasantikoo waaye amul benn murid boo xam ne nii maanaam bisu màggale moom fas nga fas nga ko yéene yemaleek bis ba ko jiitu wala bis ba ca topp loolu nag mu doon pas-pas bu am solo boo xam ne nii xëy na yéen Touba Veres tamit xëy na am na taxawaay boo xam ne nii am ngeen ko ci. asalaamaaleykum bisimilah. ñoo ngi ziar di balu àq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu baal doolu ñoo dimbali barke borom Touba man la maam Cheikh Sadio Ndiaye ñu gën ko xam ci Cheikh Mati nekk ci daayira Touba Varese almuhajina bi sablillah euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba mi nga xam ne si moom moo waral lii tey sa question bi am na solo lool ndax man damay faral di wax ni sëñ Abdoulaye dafa ni euh, ki nga xam ne si boo àndeek moom jëriñoo yaakaar naa boroom xel mu ne kook nga war a àndal ndax daf ni sëriñ tubaa de ba muy liggéey kenn ku nekk ca gannaawam di wax amin nekku fa woon kon ànd gi ñu ànd ak sëñ Touba yokk ko wàññiwu ko xanaa kay suñu ndimbal la daf ñuy dimbali te loolu dafa am solo ki nga xam si boo àndeek moom dimbali ko boo àndeek moom jariñu kooku rek a jar àndal kon baam ba rek a jar àndal damay gàttal rek di wax ni sëñ tubaa daf ko waxal boppam mm-hmm. jëf jël def sa bopp nga ko defal. kon loolu ku am xel ku ne war ngaa xam ni màggal gi yitte la ndaxte loo def sa bopp nga ko defal boo ma defalee ba defal ma loo amul ma defal la jomb kon boo dee xel kooku da nga ko jëfal ñi ngi sant sëñ Touba bu baax a baax a baax di sant sëñ Ablaat mi nga xam si moom la ñuy déglu mu ñu wax ni ànd gi ñu ànd ak sëñ Touba de dañoo ànd ak sëñ Touba ba pare sëñ Touba wëlbatiku defal ñu ci xéewal defal ñu ci tawféex ndaxte ki nga xam si dalaa laaj sa alal laaj la sa njaboot laaj la sa doole nga jox ko mu bàyyi la ak sa deret te bu ñu laajoon deret ji sax saa su ne ñuy xel di ko ko jox kon tawféex gi mooy deret ji nga xam si moom la ñu bàyyeel kon yal na yàlla fayal ñu leen yàlla doole ñoo dimbali doole ñu sutura ñu àgg si ci jàmm màggal ko at yu baree baree baree bari te suñ borom bi defal ñu tawféex ak taysir darajey Seydina Mohamed barke borom Touba sëñ Bamba daal ma wax leen ni leen li mu woote moom rek ko fi woote te keneen dootu ko fi woote kaay leen sant le ma yàlla lott naa ci sant yàlla yaakaar naa kuy nit ku nekk de da nga wuy ji yal nañu yàlla doolee dimbali defal ñu tawfeex ak taysiir maa ngi ziar ñëpp di jël kàddu gi di ko boo wax euh, ci turu daayira Touba Varese bu juumee rek euh, ci man la waaye suñu yéene rek la ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ànd ak yéen tamit ñu fas yéene demee nii rek ci jàmm ak salaam barke borom tubaa jërë ngeen jëfati. jërëjëf jóge fi nga xam ne moo di Touba si ci taxawaay bu am solo kon mbokk yi ni ngeen ko gisee rek ni ñu leen ko waxee ci bëccëg ba léegi ñi nga ànd ak yéen fi nga xam ne moo di malpen sax fas yéene ànd ak mbokki taalibe yi ngir teew fi nga xam ne moo di Touba Almahrousa ci bis bu màgg boobu nga xam ne sëriñ bi mi ngi ci woo mboolem jullit ñi ngir ñu santale ko ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala kon xam naa ci kanam tuuti des na fas yéene xam naa dalal ñeneen yi nga xam ne ñu mën a fas yéene ànd ci vol spécial bi bu soobee yàlla ci biir vol bi itam fas yéene ci yi nga xam ne moo di alxuraanul karim di ci durus ay xasida ba keroog nga xam ne moo di Sénégal di ñaan sunu borom subhaanahu wa ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon sànq ba léegi ñi ngi ànd ak yéen ci wàll spécial bi taxaw nag ak ki nga xam ne moo di Serigne ab Mboup ñu xàmmee ko bu baax ràññee ko bu baax mu bokk ci jëwriñ yi nga xam ne eh, doon nañ jiite li di wàll spécial yi nga xam ne moo fi daan am daan jiite li nga xam ne moo di wàllum njàngum alxuraanul karim wàllu durus xasida yi ak mboolem taxawaay bu am solo boo xam ne rek daa ngeen ko gis ci vol spécial yi nga xam ne dañ daan ñëw ci màggal gi tey ji nag mu fas yéene ànd ak ñun jëm fi nga xam ne moo di Touba Almahrousa kon Serigne Abdou li ñuy def mooy bàyyi la nga nuyu mbokki téléspectateurs yi andi itam li nga xam ne moo di sa euh, gis-gis ci liggéey bi ak itam euh, ni nga xam ne noonu ngeen daan liggéeye saa su ne ci vol spécial bi boobaak léegi mu mel ne ko ak yokkute am na ci ndax léegi du benn du ñaar ay ay voli vol la te gis nañ ne jamono yooyu xëy na benn vol rek moom ngeen daan organiser waaye li ñuy wax rek euh, Serigne bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam alxuraan loolu moo waral tey mu nekk ay ay ay ay vol yu bari murid yi di di bàyyi ko fu ne eh, ni ko sëñ maam Thierno si la waxee sànq ni ñu nekkee fii ci eh, Milan noonu la am ñu nekk ci biir réew mi ci yeneen aéroport yu nekk ci réew mi waaye noonu la am tamit ñu nekk ci dënd Europe bi am ñu nekk Amérique am ñu nekk Asie am ñu nekk Afrique te ñëpp tamit chaque jour ñi ngi xëy di jël ay vol di mobiliser jëm fi nga xam ne moo di bis bu màgg bu sell boobu nga moo di 18 safar kon bisimilah si Abdou asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jur mbokki taalibe bi ñoo ngi leen di siyaare baax a baax a baax di rafetlu bu baax it laaj bii nga laaj laaj bi nag tontu bi noonu naa yomb lool muy ak yokkute rek maanaam ah, kàddu gi nga mujj wax léegi rek mooy lépp mooy sëriñ bi amul tànk ginnaaw léppam tànk kanam la. ndax wal bii nga xam ne mooy wal spécial bañ ko dalee def ak léegi mën naa ne ñaar fukki at ak naa nga mat na ko bu matu fanweer at ndax 95 ak 94 lañ ko njëkk a organisé ci njiitul sëriñ ah, Amsatou Diop bëgg Thierno ak euh, sëriñ Ibrahima Thiam Mouride ak Baye Cheikh Diop ak Moustapha Mbaye Paté ak jëwriñ ko àndaloon ñëpp wax dëgg yàlla euh, euh, ñu ñaanal sëriñ maanaam Amsatou Diop bëgg Thierno yàlla yok ay xéewal ak leeram jàmbaar la lool aéroport bii di kenn bu fi njëkkee yëkkati baatu la ilaaha la ñëpp dañ jóg taxaw ne lii lu mu doon na lool bu baax léegi ñaar fukki at ak nangam la tey jii nag maanaam ma ngay dallu ca armel Daaru Manaan Touba yàlla na ko yàlla dolli ay leer waaye nañ ko waxee nii ndax wàll spécial amaat na beneen buy bëgg a ñëw incha allah rabbi dimanche muy la 11 maa nga ma ñoom ñoom it jëlu maanaam eh, air Sénégal mooy boobu ma la doon wax nii mooy Baye Cheikh Diop Moustapha Mbaye ñoom nga xam ne ñoo daan jiite wal bi kon bu bu wàll spécial amaatee tey jii maanaam a benn wal du ñaar du ñett kon sëriñ bi moom mel na ne nun mënatuñ ko fay nun daal na ko sëñ waxee yaakaar naa bu nu dagg suñu cër ju ko joxit mën noo fay sëriñ bi ndax tey buñ toogee ci aéroport bii xongu noppi bàyyi ñuy maanaam sol suñu mbubb yu rëy jàng suñu xasida di maanaam di naan suñu café maanaam di jàng suñu alxuraan yor suñu cours yor suñuy doll di jàng lépp sëriñ Touba la sëriñ Touba képp laa gis ko dajeeg sëriñ bi maanaam dajeeg nasaraan bii te maanaam ne wékku sa ngëm comme ni ko jàngat yi waxe kon nag nga xam ne daal maanaam ci gàttal moo am moo di yokkute gu wër am na ci wal bi nag nañ ko daa amale ñu ko fas amale ba mu doy jàng xaside ba mu doy bu ñu wàccee yëkkati sikkar baat la ilaha illallah sëriñ bi ñaan ñu dem incha allah rabbi noonu lañ ko fas amale tey ji allah rabbi kon nag ñi ngi gërëm baax a baax a xam naa

noo gisee maanaam nooy gi nga xam ne dox na si diggante euh, nasaraan si ak ak ak ak ak murid yi ci jëfandikoo guñ jëfandikoo njàngaleem sëriñ bi ba daanaka fi mu ne nii da ngay gis ne sax ñoom ñoo ñu yittewoo far da ngay gis nooy gi ñu nooy ba daanaka fi mu ne nii danga nga naan aéroport bi tey boo xoolee mel na ne maanaam dafa mel ne ñun ñoo ñoo leen fi ëpp sañ-sañ far euh, daa ba ci maanaam wàllum bagage yeeg yu ci lu mu ci man di doon rek fi ne lu mën di ñëw rek dafa mel ne maanaam doolay màggal gi moo koy far moo koy far buubaale yóbbu ba ñoom lu ci bari sax taluñu ko fi mu ne wax nga waaw loolu moom njàngat gi lañ mooy lépp sëriñ bi la sëriñ bi képp moo fi nekk ndax sëriñ bi maanaam moo nooyal xoli tubaab xam ne nag moom la sëriñ Tuubaa jëmbat ci ñun ba far gis nga aéroport bi ni ñu nooyee lii yaakaar naa li mbooloo mi bari bari xeet yi li ñuy bari bari bari naar ak kenn ku nekk nekk fi lii nun dong lañ fi am sañ-sañ man ko de nun njabootu Serigne Touba gi loolu moonu ko lëggéeyal nun añ rek moo ko fay moom nag moo wax jarrujuhi ilaa xawmi saha datana wal tak fi naa yow ma jamil xalqi ñiiraana kon nag yaakaar kon ak delloom boobee moo war suñu dellu gi tey ànd ak jàmm ak ak wërsëg wane gàññ nag tey lu waay mën a sant rek lan def nag sant dong lan def noo ngi sant nag tey wala nga doo maanaam doonoo am murit wala nga nga ñàkk a jàngale nga ñàkk a dox ci njàngale bi Serigne Touba waaye boo ci dee boo ci dee dox moom amul guddi amul bëccëg waxtu wala neex mën ngaa dox buñ ne la jàkk xam ne ab Sénégal nga waaye rawante am murit nga rek yow moom maanaam sa lépp jàmm la boo amee kay bu amul kay yaa ngi ci jàmm salaam loolu nag Serigne Touba nu ko defal kon nag jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Abdou ci kàddu yu am solo yooyu kon xam naa ne ñuy def rek mooy bàyyi leen ak ki nga xam ne moo di Serigne Modou Mbaye Thiam mu fas yéene def ab doxantu ci fi nga xam ne moo di biir aéroport bi am ay images yoo xam ne def na ko jàllale pour wan ni nga xam ne noonu la murid di taxawee takku ñoom ñëpp fas yéene dëgmal woote bu mag boobu nga xam ne moom la ñu fas yéene waajal 18 safar incha allah jërëjëf Cheikh Abdou. kon sëñ Modou Mbaye Thiam ñoo ngi delluwaat ci liggéey bi rek incha allah rabbi neen ko doon doxale booba léegi ngir waajal bisub sëriñ Touba bi nu umul lu du mooy mooy 18 safar tey ji nag ñoo ngi ba léegi aéroport Milan muy Malpensa ngir fa yéene dem euh, ci euh, wuy ji woore sëriñ Touba boobee yàlla nag da cee defaat taw fii it maanaam ñu àndaat ak sëriñ euh, sëtu sëriñ Massamba Diop Sam muy bàyyi sëriñ Diop bàyyi sëriñ Diop nag kenn ku nekk xam ne ko ndax maanaam sëriñ sëriñ Massamba Diop Sama te ko bëgg a laajal mooy nu mu gisee lëggéey sëriñ bi ak nii nga xam ne réew mi nooyee na ni ak maanaam woote sëriñ bi nga xam ne tey nangami wal danañ dem ndax wal bii nii wal spécial la lépp di ay murit ñuy jàng xasi jàng alxuraan yor suñu suñu côté di salaatu àlla nabi ngir wuy ji woote sëriñ Tuubaa bi waaye am na beneen wal bu bëgg a ñëwaat dimanche la 11 mooy Air Sénégal ngir fas yéene ah, ah, nii ñu doxale ñu di ko doxale ci jaww ji boogu rek yeneen nag maanaam noo ngi koy eh, eh, da jox suñu daal maanaam mu wax nu nu mu gisee liggéey sëriñ bi ak am bu baax a baax ak nooy gi nga xam ne tubaab bi nooy na ko kon sëriñ bi ñoo ngi jéglu baax tey sàkku ci yow ay kàddu rek ngir barkeeloo ko ci liggéey bi ausubillahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim salaatu wa salaam ala rasulullah saydina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf fi yàgg nu yàgg feek moom bis bii de day bis boo xamante ni nun ci suñ jëmm war na noo ëpp rek santale Serigne Touba yàlla waaw nun ci suñu jëmm war na noo ëppale sëriñ Touba santale ko yàlla ndax am na der bu ñuul bu dutoon ak tey jii Serigne Touba ba tey suñ suñ mbuum gaa nga ci loxoy jaam ya kon war na noo santal Serigne Touba bu baax bis bi nag day bisub jëf jël ndax ginnaaw ña ca barsàq sax bu bis bi dellusiwaatee dañuy xam ne bis ba dellusiwaat na te Serigne Touba lépp li ko suñu borom defaloon ci bisam boobee bu bis bi dellusiwaatee tey jii da koy kër kon nag taalib yi nga xam ne yaakaar lu dul Serigne Touba ñëpp waaj ngir jëm ci Serigne Touba di ko santale ngir yàlla ci bis boobee ndax nee na la tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lépp lu ci waay man maanaam na ko ko santale yàlla jàng alxuraan def salaatu ala nabi ak si kër si boole ko nag ak loo man rek ci def ko. man mii di wax ak yow maa ngeek ak joo xam ne ban tàmbalee ba fi mu toll juróom-ñaar fukki xale ak ñett ña nga fa bis bu yàlla saako nu jàng ñetti kaamil def ko addi Serigne ba keroog nag bisub safar ba di jeex. am naa doom ji nekk Gambie maanaam uh, mu faatihal bisir jàng na ci fanweer ñu koy wax Serigne Bara Diop lépp nag ñu def ko àddee Serigne Touba sëñ Modou mbay seen rajo bii de ñoo ngi ñaan ci Serigne Touba ak nag Cheikh Massamba min sañ a mu gën koo dolli tawféex ak xiiwal ndax rajo ba loo xam ne de bés bu yàlla sàkk wallaahi wal asim su ma nekkul ci waaroo maa ngi koy yàlla nag ak jëmi Serigne Touba ak taalibe gi ak wax ji nga xam ne nag am na solo ak Serigne Moustapha Mbaye Sam mi nga xamante ne nag maanaam moom allah macha allah fa mu nekk ci Touba moog sama mag bu ñuy wax sëñ Basirou Diop jumaay sëñ Basirou Diop ak kër sëñ sëñ Moustapha Mbaye Sam ñoo dend Modou Mbaye technicien moom maanaam Modou Mbaye Thiam moom xàmmi naa ko bu baax te gisaguma ko woon kon nag yàlla nañ yàlla jàppale lépp loo xamante ni noo ngi ko ciy seenu ci xiwér yàlla nañ Serigne Touba defal lu ko gën a kawe suñ jort yàlla nañ Serigne Touba def ñu teewe ko ay déwéni déwéni déwéni déwén te ñu gën a neex sëñ Mountakha Mbacké nag dañ lañu fii suñu borom andil kenn ku nekk da jaar na fi macha kenn ku nekk bay nga sawaar ba mu mat waaye borom jàmm ji ak mbég mi yàlla na guddal fan wi barkeel liggéey bi te lépp lu mu tàmbali ànd ko taalibe ci barke Seexul Xadim man de damaa mëniwul wax waaye sama xol sedd na bég na salaatu wa salaam ala rasulullah jërëjëf sëñ Modou Mbaye. jërëjëf jëf tubaarkalla jërëjëf macha allah. Cheikh Bamba dem na Kombo ba ñëw dem seeti gànnaar ñun leen ko sargale teer na wàcc gànnaar Cheikh Bamba. dem na Congo ba ñëw dem seeti gànnaar na leen ko sargali teer na wàcc gànnaar ku xam te xàmme am xel léegi nag ni waa Kajoor Cheikh amoon tey réewi gànnaar Cheikh day diine wan leen yoonu bu baax buur yàlla yóbbu ko may ko ay may fa gànnaar way gaayi kaaleen waxtaan tuuti ci mbir Seex kawteef la cay jile waay jar fal na gannaar moom Samba Jaara nee na jiwoo xam yàlla moo baax moo fi gën gile waay moo gën te moo amun te sooboon seeti gannaar te samay wax subaak ngoon waaju dal bileem réew ba Seex Bamba seeti suñu dem sañ ci gànnaar kon naar yey nañu njàmbee booba nag la ma wax naar yaa fi gën ndaxte Seex Bamba féete gànnaar naar yaa ni gànnaar ga maalum xatta jottu kulóor ya nee wala gonda ñaara faw ko gànnaar olof yi ne déeta waay Kajoor a gën wi le réew Seex ma fa feeñ feeñu fa gànnaar amul fa ñooro amul feneen gi xeet nit ku ñuul dem seeti gànnaar gisul ku mel na ka moom mu sex la foo weral te lay layla tey layla wolof bey sangu gànnaar sëñ Bamba kii moo yilif nit ku ñuul ak nit ku weex bile tan sëñ Bamba amul fa ñooro amul fa gànnaar ñu gaawtu tër boole kook xamadeek wolof akum ndof gu mag bañ feete gànnaar ñu xëy raw suñu reen daj ko gaaw te wolof mooy dof sëñ bamba bët bu ko gis bu doon fa gànnaar ñu ñoom ñoom dëggal nañu jiitu kii ba daa ko siyaare ngir ga barkem nga day baawaan fa gànnaar tamen ku laaj ku mel ni maama wax la ma sëñ Bamba mooy li fi sax tey sax fa gànnaar bu ma feeñal ku mel ni moom bu ma ko laaj sëñ Bamba amul fii amul fa gànnaar ñu gaaw tëb nag akub rëy boole koog xamadeeg wolof akub ndof gu mag bañ féete gànnaar te yàlla sëñ Bamba jiitu na kii sut na foore kii jeexal na téere yilif na koo xam ne mooy ab cheikh fa gànnaar addiyee mam cheikh Rahim Fall addiyee borom daarul muxti la noo ngi léegi ba léegi sëñ Mourou Mbaye Thiam mi nga xam ne moo yor rajo Touba Monde bi Milan xëy na ko ko doon dégg te xamoo ko nga xam ne kon Mourou Mbaye Thiam rajo Touba Monde mi ngi nii tey jii ànd ak ñun ci wàllu spécial màggal Touba gi kon nag tey jii ñoo ngi aéroport Malpensa muy la 9 septembre 2022 incha allah rabi ñoo ngi wéy léegi ba léegi kon ñu ñëw ci sëriñ Jaaja Njaay mi nga xam ne moom jëwriñ la ci liggéey borom Daaru Mooti fii ci Touba Rimini ñu daje moom fii ci Touba Mina mu fas yéene wujji woote sëriñ Touba yi kon sëñ euh, sëñ Baye Jaaja Njaay yow naka nga gisee woote bi nga xam ne sëriñ Touba woote na ko ñun ñëpp àndoo di ko sant léegi yàlla mu mel ne benn wal lañ daan am wal boobu moo daan dem saa su ne lu toll ci ñaar fukki at ak nangam xam naa ko ndax sëriñ am satu Jóob bëgg cere moo ko daan jiit ak Baye Mor Thiam man mi nga xam ne naa daan ànd ak ñoom ci liggéey boobu wala boobu incha allah rek dama ñëw toog dimanche incha la onze wala mm, bu euh, Sénégal bi moo la jël waaye yokkuteeg a a am na benn bu ñëwaat dimanche incha mooy wala spécial ba bu mel ni bii waaye nag li ñu ci laajee mooy yokkute gi nga xam sëriñ bi li maanaam ay mbiram yokku ko ak it maanaam ni ko doon laajee léegi rek noo gi xam ne toog ci aéroport bi tey sëñ Touba waaw kon nag sëñ Gaaji bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Abdou ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di mbooloo mépp di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu àggaleel ñu di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm te képp koo xam ne bëgg ngaa ñëw sun boroom indi la ci barke borom Touba. Euh, a ah, sëñ Abdou li nga laaj lu am solo la ndax wal spécial bi nga wax euh, dem na waaye dafa mel ni ren bis bu ne wal spécial la ndax man bi ma tàbbee ci aéroport bi damaa bëgg ndax murit yi ma gis euh, ci yoon wi mu mel ni daanaka ñun ñëpp dañoo joxante woon rendez-vous fii loolu moo njëkk a bégloo ndax lii seentuwuma ko woon ku ci ne bi ngay dagg billet da ngaa dem dagg billet ci sa ab ruq ñëw ñu jox la bis nga ñëw bi ñu ñëwee maanaam mel ni e, murid yëpp ñoo fi daje surtout nag waa ahlu xasida waa ahlu xasida yi daanaka genn waa léegi gépp waa ahlu xasida lañ kon e, loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax waaye Serigne Touba moom moo amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am nii mu mel tey ni lay mel suba ni lay mel ginnaaw suba aéroport boo dem ci réew mi nii lay mel ndax Serigne Touba woote murid yi dañ koy wuy ji dafa am benn mbokk bu ko waxoon ne buñ xasee woote màggal ak Touba moom lépp lu waay waxaat lu màggal gi da ngay soof màggal gi képp mooy actualité kon yal nañu ci yàlla yóbbu te weesale ñu ko te ñaan yi ci ñaan yàlla nangu ko ku bëgg a ñëw yàlla indile koo xam ne suñu borom natt na la ba mënoo dem Touba war koo def fii yeneen na yàlla nangul la sa ñaan nga àggale ko ci jàmm ci barkeb borom Touba barkeb xasida yi ñu ngi siyaare bu baax daal bég bég lool bég mbégte moo xam ne. am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yow sëñ Mbay jërëjëf. asalaamaaleykum mbokku taalibe bi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp seen tur ak seen sant di wax sëñ taxaa yàlla na fi yàgg lool te wér na fi yàgg te wér jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba ñoo ngi sant nag di dellu ko tedd ki sant bu wér ndax fekkewaat ko rek ak cant la waaw lii ñu jëm nag si yàlla yóbbu si jàmm delloo suñu si jàmm te yàlla mayal ñu si ndam si barke Cheikhal Khadim mu ñu yaakaar barke Sëñ Fàllu mu ñu yaakaar waaw waa Italie nag moom sa kaw sa kanam rek waaw sa kaw sa kanam rek jëf jël rek lu ñu wax kon nag murid yëpp takk nañu ñoo ngi nii ilaa Touba rek la wax barke borom Touba ilaa Touba rek lu ñu wax waxuñu dara ilaa Touba la ñu wax tey waaw kii lañ ko jaay tey yàlla nañu yegg si jàmm te dellu si jàmm barke borom Touba jërë ngeen jëf. لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا لا إله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله nun kii nu am kenn amu ko Bamba mi yaa ko wane ba na kenn du la fàtte lu fi yëngu ñu gis la ci maam Cheikh roy laa ñu war ci Bamba ji maam Cheikh Ibra wàcc na Sëriñ Fallu Mbàkke fàttewu la maam Cheikh Ibra wàcc na Sëriñ Fallu Mbàkke fàttewu la xool na si jumaa yu jël sëb sóoroo tuddee la ko yàlla nañu la buur fayal si yoonu leer wi nga ñu xàllal fu ñu toll faal di la njukkal ci bamba ngir jar nga maa ngi soow aka wax naan Cheikh Bamba mi réew maa ngi soow aka wax naan Bamba réer nañu ndax moom day melul ni ki waa réew mi ba gànnaar réew naa ngi soow aka wax naan Cheikh Bamba réer nañu ndax matal xabiro li war kabiro ma la yaboro min al haye matal xabiro كبير ما لا يبور من الهائب هبه ما دلالي ما دلالي الظلم على بلا الدهاء مد المعافى عمري أسافى وقد سافى لبعناء دام درابي حين ترابي بلا درابي wala nari yalo sogore hila sogore hala sogore zarbe zanaye hila dagiye lajir zakiye babi rogiye yalo nidaye من المبادئ لزر داعي لك دور منك المهور لك زور الغداء لخير داي لخير داي من كسباي لك قلوبي من كسرور قد سيره بخير ماله لشر عليه إلى السلام وفد الكلام بلا ملام ولا إله من غساني زبد لا لما البدالي قول دالي بلا جدالي سوي رواي هلا وربي خزانه بي لو بلا بقاي ولا دواء المريد نفى المريد نعم الوريد ينمي سرائي وجد زوري لمود سيري بخير مالي على الولاء وجد سوري موت سيري من غير ما على liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci avion bi. sëriñ bi nee na nañ doon ñaa maa ngi déglu ñun ñëpp liggéey bi ñu la gën sëriñ Tuubaa kaw jaww ji. ci kaw leeral ko maanaam ko te liñ ko def itam lim yi nga xam ne moom lañ joxe. nee na ni ñu bëri lim yi ñu joxe woon ni ñu sëriñ Touba bëggee dimbalee ni ñu sëriñ Touba bëggee dimbalee loolu moo tax ñuy tànn xasida yooyu moo tax ñu tànn xasida yooyu dawal ko ci biir jaww ji dawal ko ci biir jaww ji boole ko salaatu ala nabi boole ko salaatu ala nabi ak istixfaar istixfaar loolu yi nag loolu yi nag bëgg a bokk ak waa adduna bi yëpp nee na dañ bëgg a bëgg a bëgg adduna bi ndax sëriñ Touba ci boppam dafa yaatal dafa wax ne irham jami al wara sëriñ Touba dafa yaatal moo wax irham ne bii kon nag bis bii ne ñun ñëpp maanaam ci moom moo tax ñu ñëw. ñun ñëpp moo tax ñu bàyyi lan doon def lépp sunu lépp tam jar ko nag tam jar ko sëkk xarajtu sabt yow ma saamina asar li xidmatil muxtaari fii sahri safar la wax waaw génn googu nga xam ne moom la génnoon bisu gaabu génn moo tax ñëpp a génn ñëppay génn fi mu nii wér na ñëppay ku nagul ñëppay génn seen kër moo loolu yi nga xamante ne bi moom la bëgg nag sababu xaybati an allah jooju ma wax waaw araada an ana law an ujan a nakkoon a saafiyan lil xaw mi wa nakkoon a xaadiman fii daw bi xettali xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi ñu yéggee ci avion bi ñu jël limbu xasiida boo xamante ne bii xasiida gu ci nekk la ci sëriñ bi wax doy na sëkk wér na ndax saane ilahi bil munajiati wa abadan ax naa yemi an haati dalla haliyal ulama wal awliya mun lay salli xootul awliya xasiidati faaxat xas aydal kiram loolu yi la sëriñ bi wax waaye wax na ne euh, saana ilahi day taxaw na euh, bépp xare boo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mas na koo xari xasiida googu taxaw na ko jàng nañ ci limu ñaar fukk ak juróom-ñett bëgg lépp loo xamante ni bi fay nañu ko cawe ñu boole ko ñu bokkoo ko waa duna bi yëpp rabbi bi maa yasrool asana xad faja xasiida googu nga xam ne ñaari tur yàlla yi arrahmaanu rahim la ko tëggee moom itam jàng nañ ko ñaar fukki yoon ak juróom ñett su noppee si yab du doon ko lim sax suratul ixlaas def naa ko ci sama kurus mille cent onze lépp ñu wàddi yàlla ko Sëriñ Tuubaa njukkale ko ko ci bis bi santale ko yàlla ndax xiiwal yi gën a bari gën a saawaat yàlla nañ ko bokk ak waa duna bi rawatina waa Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi nag ñu yëkkati xasida Serigne Touba tax Serigne Touba dafa ne kiraamatu xattu yaddi sama kiraama yàlla na ma ko defal ci sama mbindum loxo kon nag xasida yi ci la lépp ne yàlla na ngeen yàlla amul ngërëmul xasida yi yàlla na ngeen daje ngërëmul Serigne Touba ñu yàgg ñëw fekki leen fi ànd ak yéen am ay xéewal ba toog fii di ko ànd ak yéen ci daraje Serigne Touba loolu lañ leen fasal loolu la ñuy sàkku ngeen ñaanal na ko di ñaan yàlla yàlla bu doon suñ mujj gi màggal yàlla nañ ko def ay ati ati ati at taat mun jot muy gën a neex ba àjjana rek ñu ko Cheikh Mamadou Mountakha waxe ñun ñëpp ñuy maase nag di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha ndax njëriñal adduna bi lépp la sagub jullit yi la waaye sagub murid yi la kon loolu itam ñu ngi koy sàkk bu baax di ko ci siyaare di siyaare mboolem waa euh, euh, jabatu Cheikh naa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak kilifa yi diine yëpp ak tariixa yëpp islaam bi yëpp ak umma bi yëpp ñu ngi leen di siyaare di leen màggal di leen yéene ci yiw wi nga xam ne Serigne Touba moom la demoon wuti andi ci tukkee mbërëy bi añ bu mat sa euh, njëriñ lu bari kon nag yàlla na ko yàlla boole sama xol daal fees na mënu ma cee wax loo xamante ni bi dafa bari seen mbokkum taalibe dong la nag moo xamante ni bi dafa bokk ak yéen liggéey bi kon nu a fay noonu ñu ñëpp suñu bopp xam ne gis benn wal bu koy def man tubaab yëpp maa daa yéem nu moom leen bëgg a mosal tuuti rek Isnu Abraar jàng nañ ci juróom léegi wakaan xaqan jàng nañ ci limu bu arafi Tuuba muy ñaar fukk juróom-ñetti kaw jaww ji wala xada karam naa jàng nañ ci fukk jël bu jàng nañ ci fukk mawaahi bu limu arafi Tuuba muy ñaar fukk juróom-ñetti jaalibatu jàng nañ ci jaawatu jàng nañ arafi Tuuba muy ñaar fukk ak juróom sindiidi jàng nañ arafi Tuuba muy ñaar fukk ak juróom-ñett matlabul fawsayni noonu lañ ko doxale taw tuhfatu mudra'in noonu lañ ko doxale waa nag ik fi nii jàng nañ ko taysir jàng ci benn saana ilaahi bi leen doon wax maanaam jàng na ci ñaar fukk ak waaye nag moom ci boppam laa mi ñu moom li nga xam ne jàng na ci xulu wallaahu maanaam mille cent onze yoo xam ne ci kaw jëy la kon jàng def addi nu tiim géej gi tiim jaww mu koy jàng di sor borom daaru muti ma nga xam ne moo demoon ndar yëf yi daal bay moon yemale ko fii ndax mënatuma àggale sax man lim bal ma yàlla yàlla boole jégal barke Serigne Touba Uh-huh. weetaay du wàññi ab ngemam maam uh-huh. Cerno faati genn jëmmalam dara du yóbbaaw fitam uh-huh. maam Cerno ndaamal daaru dara du tax mu raafay batam weetaay du wàññi ab ngemam tey borom daaru genn jëmmalam masula rak masula tiit du jaaxle masee fu ko kalaana bor maam Thierno Fati moo baax lépp ma seegu moo iñu dërëm di giñ loo masula waatoo mbaa mu dox di ñoñ loo ñeme ñeme ñeme ba mel ni ab gar dafa ragal yàlla ba mel ni bakar te wexe wex xat maam Thierno damal daal ba mel ni xadar dafa la wet ba mel ni am xar tabe tabe tabe ba mel ni marmar te aaya aaya aay ba mel ni parpar addiyee man seenu ndaamal daar jërëjëfe borom daar amin jërëjëf